Monsieur Djibi Diop Ndiaye, président du COGEP, COGEP qui veut dire euh, collectif des journalistes euh, sortant des écoles privées. Bon, comme vous le savez, euh, les journalistes, euh, c'est une école, une école euh, de formation en pratique et euh, c'est ça qu'on a donc essayé d'appliquer dans nos activités du COGEP. Et aujourd'hui, donc, c'est un atelier qu'on a organisé ici à Thiès en partenariat avec le campus de Thiès pour euh, inviter les étudiants à pratiquer sur le métier du journalisme. Le métier du journalisme demande beaucoup de terrain, beaucoup de connaissances, de compétences. Comme vous le savez, donc, euh, c'est sont ces activités-là qui nous permettent, nous, euh, encadreurs et anciens, d'inviter nos, nos, frères, nos sœurs qui sont en classe de, de licence, euh, de comprendre mieux le métier du journalisme et ceux qui sont en début de carrière et de stage. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a organisé euh, cet, cet atelier et pour inviter donc euh, nos frères, nos sœurs donc à mieux comprendre le code de la presse à mieux comprendre la pratique, de, le, le, traitement de l'information, mais aussi à mieux comprendre les dérives du métier, comme on le dit. Donc ce métier regorge beaucoup de dérives, donc beaucoup de pénalités, beaucoup de, de, de diffamation. Donc il faut comprendre comment traiter l'information pour ne pas engager des choses que, qui ne vous concernent pas. Voilà. Voilà, vous le savez tous, euh, comme on dit, collectif de journalistes sortant des écoles privées, c'est des étudiants qui sont donc euh, sortant des écoles privées. Et nous, la majeure partie donc de ces membres du COGEP sont dans les écoles privées, sont, sont des sortants des écoles privées. Et on a pris donc cette initiative pour essayer donc d'intégrer ceux qui sont dans les écoles privées, qui sont en licence, de les le chemin, de les, de les inviter aussi à mieux comprendre le métier. Parce que ça demande un encadrement. si vous êtes journaliste, vous restez seulement sur les cours théoriques sans encadrement pratique. Au, au final, vous allez sur le terrain, vous n'allez rien comprendre. Donc, il faut ces genres d'activités-là pour inviter les étudiants à mieux comprendre ce qui nous attend, à mieux comprendre le métier du journalisme, à pratiquer aussi. Parce que si vous allez en stage, on vous demande de faire ceci et que vous ne connaissez pas ce que ceci veut dire en journalisme, essayer de d'être partenaire avec nous, d'organiser ces genres d'ateliers pour inviter les étudiants à pratiquer. Ce n'est pas seulement des cours théoriques. Les cours théoriques, ça se limite en classe. Ce qui se passe sur le terrain, c'est différent de ce qui se passe en classe. Donc sur le terrain, c'est la pratique et aussi, euh, il faut de, du courage, de, l'engouement de, de, pour pouvoir faire beaucoup de travail. C'est pour cela qu'on a dit il faut cibler d'abord les étudiants et après, on va essayer de voir donc dans, allant dans le sens de faire la promotion du métier Effectivement, parce qu'on a dit, on a, euh, auparavant c'était collectif des, des, journalistes sortant des écoles de l'ISEC. Bah, On s'est dit que ça va se limiter seulement sur ISEC. Et maintenant, avec euh, les dossiers, tout cela, on a dit que ça sera collectif des journalistes sortant des écoles privées du Sénégal. Nous appelons en ce sens toutes les écoles privées du Sénégal à venir intégrer ce collectif, donc allant dans le sens de faire la promotion du métier du journalisme. C'est très important le dire. Il de presse pour amener le métier vers l'avant. Donc s'il n'y a pas association de presse, le métier de journalisme sera dénigré tout le temps. Les gens vont nous fuir. Si vous allez sur le terrain pour dire je suis journaliste, les gens vont dire non, je ne vais pas parler parce que vous êtes des personnes euh, qui, qui racontent des bavards. Alors qu'on a appris ce métier, on sait ce que c'est les béabas les béaba du métier. On va pas. Donc apprendre 5 ans, 3 ans en licence pour sortir et les gens vont nous fuir, ce n'est pas, pas normal. Il faut connaître les béabas, les bases les, du, du métier. C'est ça. Euh, merci Amina man maa ngi tudd euh, Rokhaya Ndiaye madame Guèye euh, nekk journaliste nekk itam trésorière collectif des journalistes sortant des écoles privées. ni ko njiit li waxee rek Djibi Diop Ndiaye tey euh, li nga xamante ne moom lañ sumb moom ak euh, li ñu defoon keroog 8 janvier ak activité yi nga xamante ni itam euh, fas yéene nañ ko sumb loolu lépp mi ngi dugg ci benn cadre mooy nu ñuy gën a ñoŋalee métier bi nga xamante ne moom mooy métier journaliste waaye tey naka la ñuy dooleelee suñu rakk yi nga xamante ni ñoom ci ndoxteelu métier bi ci lañ nekk muy ñi jàng nekk ci licence 1 ba licence 3 ñun ñi nga xamante ni xëy na am nañu chance jiitu leen ci métier bi pratiquer stage bay commencer di liggéey wan euh, fan la ñuy teg seen tànk itam ndax niñ koy waxee xëy na euh, jàng bi euh, bu fekkente ne ci théorie rek la yem doo mën a xam dëgg-dëgg lan mooy métier journaliste te mu nekk métier mu am solo loolu nekk métier moo xam ne itam dañuy faral di wax la presse le quatrième pouvoir mu nekk loo xamante ni itam képp koo xamante ni dañ ciy dugg di ko exercer loo war a xam la loo war a miin la tey ji nag niñ koy waxee rek dériv yi bari na ci métier journaliste bi désinformation bi itam bari na ñun li nga xamante ne moom mooy suñu combat mooy suñu rakk yi nekk ci école de journalisme yi ñun peu expérience bi nga xamante ne yàlla baaxee nañu ko ñu partagé ko ak ñoom ba tey fu ñu taxawee yëkkati kàddu wax ñu xam ne ñii journaliste yoo xamante ne conscient nañ ci seen rôle bi nga xamante ne moom lañ war a def waaye conscient nañ itam ci li nga xamante ne moom mooy seen ak ak seen yelleef ci société bi ñu nekk waaw ci ndorteel ba sax ci njëlbéenu bi ñuy sos euh, suñu collectif bi lee euh, mën nañ ni étudiant ISEC yi ñoom ñoo ci nekkoon loolee li ko doon waral itam mënees na koo comprendre ndax ñu ci bari ci ñun ISEC la ñu génnee muy man mii muy président bi ak yéen ñi taxaw tey euh, wër ma ñu ci bari ci ñun ISEC la ñu génnee waaye ñu dem ba xam ne itam mbirum journaliste moom mbirum famille la macha allah ñun moom réew mi dañ ci am pàcc bu yaatoo yaatu macha allah moo tax ñu ne ñun itam dañuy ubbi suñu ay buntu tëjaluñ ko kenn loolee waral ñu def journalistes sortant des écoles privées du Sénégal tey jii suñu collectif envergure nationale moom la am étudiants yi nga xamante ni ñu ngi ci école de journalisme yi nekk ci Sénégal yëpp dañuy ñëw ndax ñun suñu mbëbët ni ma ko waxee sànq benn la mooy former journaliste ba journaliste fu mu taxawee tey yëkkati kàddu li nga xamante ni moom lañ daan teg ci euh, ginnaaw journaliste mu njëkk ba mooy ñun kat parfois li ñu gars yi di wax yéenay tas réew meeg euh, da ngeen a doy waar yooyu la Euh, tey ji ñu defaraat derub journaliste ba tey fu ñu taxawee comme suñu yeneen moroom yi nekk ci yeneen métier bi ñu jox ñu suñu gëdd bi ñu yellool waa xanaa di leen wax ñu ñëw ñu ñëw wàll si ah, parce que yëf yi kanam la jëm euh, doorteel nañ ko tey booleeg euh, partenariat école bi nga xamante ni euh, moom mooy suñu premier partenaire ndax ni ma ko waxee ñun ñëpp fi la ñu génnee mais di leen lancer rek appel ñoom ñi nga xamante ni kon ñoom ñooy école privée yi jàngale journalisme ñu ñëw fekk si parce que seen intérêt ci la nekk mooy lan ñun ñëpp bu ñu concourir ci formation ñi nga xamante ni ñoom ñooy journalistes yi yaakaar naa ni loolu seen intérêt ci nekk te ñun itam ci yoon boobu lañ nekk di dox donc partenariat bi gagnant gagnant lay doon a nekk bénéficiaire dëgg moom mooy étudiants yi ak ñoom ñi nga xamante ni dañoo jël journalisme def ko seen passion